liggéey bi it mi ngi jaar yoon daanaka gars yi mbokk taal bi yëpp bëri ñoom ñoo ngi taxaw ngir fas yéene dabu ngërëmal sëñ Tuubaa rek moom moo ñu moo ñu moo mooy la xam ne moom moo ñu ñor ci bis bi nii li ko waaw lii bu fekkee wàllum gi lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu fàggu indaale la bu fekkee ñun lu ñu fàggu indaale la ndax ay étudiant lañu dañuy dajale ay sas di dajale ay weeru dee bi ko dajale pour màggal Tuubaa gi mooy ay addiye loo xam ne indaale nañ ko mën na am na loo xam ne dañ ko ci indaale am loo xam ne ay ay yu ñu fekk lay doon waaw durant màggal gi fi lay nekk distribuer café. waaw durant di ko di ko distribuer ba ba trois jours yëpp la waaw 16 di distribuer café di di distribuer café ba ba ba ñuy kii waaw. liggéey mbaa la doo ci mel ni ko ay jafe-jafe. waaw liggéey bi moom daanaka jafe-jafe mooy. xëy na mbokk taalibe ci bëri maam am nañu ay ay kër sëriñ wala ay dal yoo xam ne nii yenn saa yi ñu bàyyi ko fii bàyyi fi liggéey bi dem nemmeeku ci mbokk yeeg yooyu noonu yi ñu nekk fii daanaka kenn moo ci nekk ma ku di sibir kafe yi dana ci am jafe-jafe yenn saa yi tamit comme ko mel boo xam ne nii pour nga distribuer café day day yooyu noonu waaw ñuy fi doo leen fàggu lépp ndax mat na waaw ñuy jàng alxuraan maam liggéey bi moom leen lépp lépp mën na moom lépp mën na añ yeeg reer yeeg lépp lépp moom day mat ba ci njëkk bi lépp café gi lépp day mat heure bu ñu daanaka chaque jour dana def dana def cinq séances distribué ko café ba ci njëkk bi tamit ak boole kook ay yoo xam ne añ bi tamit reer après boisson ndox yëpp dañ koy dañ koy ndox. Eh, jërëjëf ci Mawahibou Akyas yaakaar naa ku dégg ni tur yi mel rek war naa xam ne ay yoo xam ne dañuy sàkku xam-xam waaye nag xam-xam boobu dañ koo def ngir liggéeyal Sëñ Tuubaa defuñu ko ngir wutum koom wala ngir bëgg àdduna waaye dañ ko def ngir wut sëñ Tuuba ndax bu njëkk daawuñu miin étudiant mel nii waaye gis nga ni laxasaayoo boo dikkee dana yaakaar ne culturelu daara la ñor loolu feeñ na loolu nag Pastef am yëpp loolu foog naa sëñ Babu yëg-yëg bu mag a mag la kon ñu bàyyi nga tàggatoo. waaw waaw ñu ñëpp ak ci màggal gi di ñaanal ñëpp maanaam ngërëm ngërëma sëñ bi mboolem étudiants yi nga xam ne comme ni nga ko waxee sànq rek daanaka mbir moom Euh, man ne ndabal Sëriñ Tuubaa lay lay feeñe parce que ku nekk xam ne nasaraan si bi muy taxawal bi muy taxawal daari français yi pour lenn la woon ci ay gàllankoor yoo xam ne bëggoon na koo teg ngir ngir fànq taalibe yi ñu nekk ci yeneen yoon ci yoonu nasaraan si te tey boo xoolee tey Sëriñ Tuubaa dafa dugg tey ci daari nasaraan sa boo fa àggee ñun ay daayira la taxawal ñu ngi ci xasida yi Sëriñ Tuubaa yi di kii yooyu bu bu bàyyi di gërëm ñu ngi ci ñu ànd ko bokk taalibe yëpp a gërëm sa xol rek dara du la naqari ndax li ñu waxoon ci kum kaati man rek dawee maanaa dar si la xaw yaa te jëm-jëmu yaakaar naa yéen a ngi dund béy yàlla leen sëriñ bi gën a fay bu baax a baax ngeen doyee ngërëmam te li ngeen di jàng yàlla ko sëriñ bi jàpp ndax ba su ngeen génnee rek yàlla ngeen ci dégg ay xéwal kon mbokk ñu ngi leen jox dagg déggee ci yenn bërëb incha allah salaatu lazi